وأنزلنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه به ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء وتماثيل وجفان كالجواب وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبأ في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين جنتين ذوات يكل خمط وأثل وشيء سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفور صدق الله العظيم هذا جزاء الإحسان للخدام الحمد لله الذي يجازي من أحسن بالخير والمفاز الحمد لله الذي يجازي من أحسن بالخير والمفاز وصلواته على التهام wa aalihi wa saxbihi alquddaami haadaa wa inni alyawma duu ridaa'i wa duu mahabbatin li haaulaa'i lidaaka qultu taaliban min alkariim jazaa'ahum bijaahi dil jaahi alcaziim yaa rabbanaa yaa rabbanaa yaa rabbanaa يا ربنا يا ربنا يا حبنا صل على خير الورى محمد وآله مع الصحاب العبد واغفر ذنوبي وذنوب المسلمين والمسلمات يا غفور يا معين واقض حوائج الذين داموا في خدمتي وهب لهم ما راموا وارزقهم الإيمان والإسلام والفتح والإحسان واستسلاما وجازهم عني بالغفران وبالكرامات وبالرضوان واجذبهم إلى الهدى والخير واصرفهم عن الردى والضير واغفر لهم كل لغى وذنب wahab lahum maan salaah alqalbi wa kun muinahum ala umuuri addiini waddunyaa mada duhuuri wala tuwaaxidhum bima qad ajramuu fi sirri waljahri fa anta alakramu waftax alayhim fi lculuumi fatxa yaziilu yuziilu canhum danasan wa qubxa waftax alayhim fi lulumi fatxa yuzilu anhum danasan wa qubxa wa hab lahum saadatan taduumu yaa barru yaa mujibu yaa karimu wasrif qulubahum ila ltaaati bililmi walamali fi lawqaati bijaahi afdali lwara muhammadi wa xaqi shahri ramadana alamjadi وحق آله وصحبه جميع وحق كل ذي عبادة مطيع وصليا عليه ثم سلما وآله وصحبه وكرما ما دامت الخدمة سلما إلى سعادة ولنجاة وعلا ما دامت الخدمة سلما إلى سعادة ولنجاة وعلا subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuuna wa salaamun ala almursaliina walhamdulillahi rabbil aalamiin alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa wala mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñi nuyu ñi teew ci jotaay bi ñëpp ci turu almadrasatul xadimiya bi nga xam ne sëriñ Moustapha Diop Alkoki moo nekk ca bopp leen dalal ak di leen tatagal ci jataay bu tedd bi di jiital nag ci nuyoo bi ak ziar bi euh, alxalifatul am li taifatul muridi a cheikh Mouhamadul Muntaxa xafidahullah wa raa moom mi nga xam ne moom lañ tudde bis bi ngeen njukkal ko ak sargal ko waaye jox ko tam lu moom di nuyu tamit a cheikh Mamour Mbacke Mourtada raisu jaamiatu Cheikh Ahmadou Bamba mi nga xam ne moom lañu daajaale bis bii moom it ci ay taxawaayam yu rafet ci wàllu xam-xam waaye ci diggante yar ak jàngale waaye tam ci liggéeyu lislaam yi rawatina liggéeyu Cheikh Xadim bi kon ñi ngi jiital nuyoo bi ñoom ñooñu di ko teg ci ñoom di ko jàll nag ci mbooleem gan yu tedd yi nga xam ne ñu ci jotaay bi di ay boromi xam-xam di ay gëstukat di ay xeltukat di ay sàkkukati xam-xam di ay daara yuy jàngale ak yar ci biir dëkk bii waaye ci biir réew mi yépp ñuy am mbégte lool tamit ci dalal ñi nga xam ne ñu ngi fi xay na tamit di ay sàkkukati xam-xam bàyyi ko tam ci bërëb yu fasanti ko ngir teewe si bis màgg bi nga xam ne taarix du ko fàtte ndax bis la bu màgg ci kaw xayaatu kitaabin istahraqa taalifuhu akthara min ruba xam waaye taarix yi la tuwe ci kitaabi xayaati aalimin wa baaxisin wa mufakkirin wa faylasuuf a cheikh mahamadou sadio al koki kon mbégte la lool ñu am jataay bu toll jii waaye tamit kon ñi ñi dala demee ne ñoom ñoomam jataay bi kon ñi ngi ñaan yàlla suñu borom defal nañ ci tawfiq ñu dajatee ngërëmu Cheikhul Xadim mi nga xam ne nii mooy borom jataay bi ñu ngi jéglu ci gàtta gi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu xam naa dugg naa ni rubb rubba ma jaayoon mbaam ma daal ni nopp ya du dem dugg naa ni moom wala ma dugge lu raw na mu dugge woon ndax liggéeyu Cheikh Moustapha Diop bi al umdatu fi nazariyatil xidma dafay liggéey bu am solo bu yaatu bu rëy bu naqaree dégg waaye bu bari njariñ képp ku ñu jox sasu nii da nga ko war a tënk wala da ko war a présenté ci lu war a tolloog ñaar fukki minute ak juróom te liir naa ko lu ëpp ñaar fukki fan ak juróom liirub taxaw xoolaat seetantal jël note te xam naa ni ba léegi xaajal bu mu ko du xaajal parcourir téere bi yépp waaye génne ci liñ ci mën a génne xaj na nag présenté ak téere nekkul taxlil nekkul charx nekkul naqad taqdim la boo koy def it da ko war a def ak honnêteté indi rek li nekk ci téere bi te bañ ci dugal say xalaat waaye mënta ñàkk tënk parce que tënk bi mooy mën a tax ci diirub minutes yi ñu la jox nit ñi mën a jël li ñuy tuddee l'essentiel maanaam daal loo xam ni mooy quintessence bi di ëpp solo buñ ko naloon lu ñu wax ni lii mooy nalit bi ci jàpp ñu jàpp ni ëpp na ëpp na solo loolu nag sëñ Moustapha dafa am lu mu yàgg waxee am lu mu yàgg a wax liggéey bi xam naa sax dafa tombe ñu ngi naan ma ñaar fukki minute ak juróom wax na ma moom ni li baax sub ñaar fukki at la ak juróom moom ma ko waxal boppam wax ni itam mbokki wi baaxi si na yi nga xam ni dañuy yëngu ci wàllu gëstoog jàngale ak yu mel noonu daf leen di wax toujours ni kenn ku ci nekkoon war ngaa wut benn mawdoo di ca liggéey ndax boo ca sëggee boo siggee man caa génne lu am njëriñ looloo tax dama bëgg ñu ubbee ard bi wala taqdim bi may taqdim téere bi waxu sañu Moustapha ci boppam su ko defee dinañu xam ni téere bii dafa ñëw nekk benn continuité madat continuité la ci ay gëstu ak i xalaat yoo xam ni ni ko Oustaz Maodo waxee léegi yàgg na koo def Oustaz Maodo nag mbubu moom docteur dama koy bàyyi ñoom docteur Khadim ba ci kanam ndax ñoom ñooy samay sëriñ fi mu nekk ci wàllu ci jàngu bi di xamle itam ni bu ñu dégloo ni sëñ Moustapha waxe danañ xam ni dégg ko léeg jafe na wax naa sax mel na mbokk fa yi ni ko ah kalaamul falasifa lastu afhamu li anna ni ana wa hum humu ana lastu fay la suufa waaye nag ana muhibbun lil falsafa ñemewumaa wax muhibbun lil xikma la Pythagore waxoon Pythagore ba mu demee Égypte jàngi ba dellu ba mu demee ñu jàppe ko xakim ba di ko wooye mu leen ana lastu xakiman innama ana muhibbun lil xikma fal xakimu huwa allah subhanahu wa taala man nag du ma wax ana muhibbun lil xikma ndax kon dama naan ab faylasuuf la waaye ana muhibbun lil falsafati wa li rijaalil falsafa sëñ Moustapha lii la daan wax ñu bokk ko teelu waaw loolu rek laa bëggoon ñu déglu sëñ Moustapha bi mu waxee ci concept al mafhama ba wax ni sëñ Touba sax léppam ci ay concept lay waxe nee na sëriñ Cheikh naa la doon wax ni ko sëñ naa concept day na nga ko jàngi ndax li ñu tuddee mëf xama ndax dafa am solo mu ni mooy tax baat jóge ci baat maanaam mi mu amoon ca ba muy tudd ab baat dem ci aw déggin dem ci concept mu ni sëñ Tuubaa li muy wax lépp ci concept la kon sëñ bi dafa def ni mission moom mooy fexe conceptualiser concept yi nekk ci biir yoon wi wala wane ko wala génne ko wala baat yu nekk ci biir yoon wi ñu di ko jëfandikoo di ko joxalante ci suñu biir ca léeg-léeg du ñu xam sax lu muy tekki baatub xidma bi ci la bokk baatub ak taalibe ci la bokk baatub pësteef ci la bokk ak yeneen ak dox li ñuy tuddee dox léeg-léeg nga dégg ku nii yooyu yëpp amul solo li am solo rek mooy pësteef ak dox ca dem ca baat yooyu sax boo ko ci taxawloo woon du xam baat yi lu muy tekki jox baat yooyu nag ay maani mooy ñoŋal ko ñoŋal ko bu bu ëllëgee kenn dootu ko mën a déformer kenn doo ci mën a dugal lu ci bokkut rawatina contexte bi ñu nekk ni ndax loolu xaaja la xaaja masse ku ne gis na phénomène yi xew bu yàggut ay jigéen ñu ñëw bëgg a ci yoon wi lu ci bokkul ba noppi di ko layal ci waxi Serigne Touba wax ni sëriñ Touba dafa waxoon ni li may def ci nit ba mbooloo di ko topp su ma ko defoon ci bant nit ñi danañ fa toog te duñ fa jóge ca waxul góor waxul jigéen nit rek la wax loolu déformé waxu sëñ bi la boroom xam-xam yi nag tey mission bi ñu am mooy bu ñu taxawul ci conceptualiser baat yooyu ak déggin yooyu jox ko ay déggin yoo xam ne dañ koy ñoŋal ba kenn dootu ko mën a déformer wala ku ko déformer dana la mën a jubbanti wax ne la baat boobu tekkiwul nangam te jox la ay preuve yu leer bu ñu ko defut lu baree bari ci yoon wi dana mujj danañ ko ruur danañ ko jëfandikoo danañ ko déformer ci jamono ngi ñëw ñu baree bari ci mag ñi duñ ko fekkee loolu tax bindkat yi di bind ci concept yooyu la sëñ Moustapha yàgg liggéey moo indi lii samara bi yi nga xam ni moo nekk ci suñ diggante ci suñuy loxo téere bi tudd téere bi kon mu tudd ko al umdatu fi nazariyat al xidma al aliyat wal mahawir al idéologiyatul badila al idéologiyatul badila mu nekk téere boo xam ni eh, am na lu war a tolloog trois cent ci forme bi lay wax trois cent quatre-vingt-deux pages euh, mu tënk ci nag loo xam ni daanañ ko gis ci yoon wi ndax mi ngi ko tënke juróomi bunt yoo xam ni benn bu ci nekk am na ci biir ay fusul ak i baax def ci nag leneen yoo xam ni yum ci ay ndollent la ay mulxaqaat la yum jol dolli ci téere bi yu am solo yoo xam ni ay buxuus ci boppam la yum jotoon a def ca mu laafal ko téere bi topp ci itam ci téere bi mën manhajiyya boo xam ni bu ñëwee ci madmun bi bu bu boppam la yëfu boppam la ca loolu moom ci boppam leeral na ko ci tàmbali bi ndax wax na ni li muy bañ mooy tënku ci méthodologie yi nga xam ni dañ koo jëggaani moo xam mu jóge Occident wala mu xam mu jógee mu jóge Orient méthodologie yoo xam ni daal ay école ñoo ñu ko jàngal ñu ciy bindee di ci tënk suñuy xalaat ba léeg-léeg mu tënkuñu ba li bëgg a wax wala suñu ibdaa du ci feeñ suñu fent moom dafa bëgg mawduu bi ci boppam moo koy wommat bu mawduu bi ci boppam moo koy tànnal méthodologie moo koy tànnee waxin waxin bi mu bëgg a wax wala yoon yi muy sóobu ngir joxe xalaat yi mu yore loolu moom layal na ko ci biir loolu tax da nga gis ci tàmbali bi mu tàmbalee ko noo xam ni miine wuñ ko di ko tàmbalee ab téere ci anamu bindin yi ñu miin lu mel ni ginnaaw ihda bi ak taqdimul mashru bi mu présenté euh, projet bi mu am ba noppi commencé ci li ñuy tuddee ma qabla tamhid at tamhid ak ma baada tamhid ci lépp moo ko defal boppam loolu dafa mel ni aw doxin bu bees la xam naa du ñàkk sax ñenn ci chercheurs yi baaxatu na yi ñoo xam ni danañ ko critiquer ci anam boobu ndax dafa doxe doxin wu ñu xamul wala mu bindee bindin wu ñu xamul waaye jàpp naa boo gisee ci lam xaman hëjee bi mu def da nga xam moom lu tax mu binde noonu ñu may mu tuuti ma talxiis lenn ci arab door a desuwaat bayyana al muallifu fi lamxatin manhajiya maanaahu maa maanaahu annahu tajannuban min alsadxiya yattabicu almanhaj alladi yufriduhu almawducu nafsuh wala yulzimu ala nafsihi aw nafsahu ittibaa almanahij almustawrada فيضيع عنه إبداعه لذلك نراه في البداية بعد الإهداء وتقديم المشروع يبدع ويأتينا ما قبل التمهيد والتمهيد وما بعد التمهيد قال الشيخ مصطفى إذا أردت تغيير العالم فغير تصورات الناس عنه الكوكي وبعد المقدمات أو المقدمات المنهجية أمطر علينا الكوكي بوابل من الممهدات العرفانية يتمثل في نبذة تاريخية حول أهم الشخصيات الإسلامية الذين جاهدوا بالقلم والمداد لنشر الثقافة الإسلامية في ربوع السنغال نون والقلم وما يسترون ومنهم الشيخ مختار جمبي جوك مؤسس جامعة كوكي الإسلامية العتيقة التي يقترن ذكره بذكر رجال تخرجوا في جامعته وأسسوا مدارس وقلعات علمية في كافة أرجاء البلاد وحياة الشيخ مختار دمبجو تدخل ضمن الإرهاصات الممهدة لميلاد عصر جديد ألا وهو عصر النهضة الفكرية والحرية معا ويمثل هذا العصر أحسن تمثيل alcheyxu alxadimu alayhi akbaru ridwanullahi albaaqi alqadim wa huwa yaxmilu shicaara alqawmi saadixan bi sawtihi alzajjal qailan walishhad bi anni laa udaahinu mushrikan xalilan xabiban lillazi karrama aljanba alcheyxu alxadim allazi assasa almuridiyata allati hiya xarakatun suufiyatun islamiyatun tajdidiya wa haza alkitab allazi bayna aydina يعالج أهم محطات محطاته العرفانية وأهم معالم رسالته التجديدية kon mbokk yi li ma doon wax léegi ci wolof yaakaar naa moom laa doon dënk léegi ci arab sëñ Moustapha ci tàmbali bi rek yaakaar naa boole naa xët yu bari ci ni mu tàmbalee téere bi ci defin mu yéeme wi mu ko def waaye boole ci dafa indi préparation boo xam ni man moom laay tuddee taqdimul irfaani fii nag des na fi dégg lu luñ daawul dégg ba tey ci jataay bi téere bi ku ko yër da nga fi gis loo daawul gis ba tey ndax bu fekkee dafa am adabiyan lu ñu daan defee taqdim ci téere wala manhajiyan sëñ Moustapha dafa introduire contexte bi maanaam ñëw gi Sëriñ Tuubaa ñëw jamono moom mi nga xam ne moo fi indi xit mooy sa borom falsafatu tajdiid daf ko wutal introduction wu Massâdj daf ko contextualiser dafa indi réew mi ni mu meloon xam ngeen waame taw bu bari bala moo ñëw faaw mu am lu ko jiitu ñenn ñu am xam-xam ci falak danañ xam ni bi sàngam mën naa taw ndax bi diw sàngam nangam nangam soo demee ba jub ko mën naa niir yi mën naa bari mu ju mu xiin mu ju mu am ngelaw lu mu sotti ña ko xam-xam nañu taw a ngi ñëw loolu lépp day ñëw ngir préparer taw bari bi ñëw sëñ Moustapha dafa mel ni loolu lañuy ñuy defal ci téere bi looloo tax mu seet ay rijaal yoo xam ni niti xam-xam lañ niti diine lañ niti tasawuf lañ ñu amoon daraja yu kawe ku mel ni Cheikh Makhtar Ndoumbe Diop kii mu indi ko ngir di wane contexte bi jiitu woon jamonoy Serigne Touba ndax Cheikh Makhtar Ndoumbe Diop Alkoki maam maaram la bokkaloon jamono. ah mu nekk koo xam ni baayam moo ko dalal njàngum alxuraan sëñ ma sàmba jóg ba mu fa jógee mu dem caameen ca maama sàmba caam jànge fa xam-xam foofa la bokkoon daara sa ak maam ak ñu bari ci kàngami réew mi mooy ña xeex seen xeex boobee ak dammel yi ginnaaw bi ñu euh, euh, bi ñu loolu beneen beneen chapitre wante mu siiwoon lool ci xam-xam rawatina ba mu demee ba mu demee Pire di fa jàng daje fa ak naari gànnaar yi ñu xelal ko ni mu bëggee naxu ak ni mu amee mustawa ci wàll woowu ak ni ko ci yàlla ubbee su demoon sin xeet day su demoon Mauritanie xam-xamam dana gën a yokk ca loolu la def moo la tax mu laxas génn réew mi dem Mauritanie yokk xam-xamam ci wàll woowu bi mu ñëwee itam mu nekk xibla maanaam nekk moom ci boppam jàngalekat boo xam ni ñu baree bari ci ci nit yi xam-xam yi bu njëkk daan laxas di ñëw di fa jàng si te loolu maam maanaam ci lañ bokk nee nañ ñëwoon na sax ànd ak kenn ci waa këram yi sanc fa nekk fa ngir di jël ci moom xam-xam yu aju ci wàllu xam-xamu luga ak naxu ak yu ni mel waaye mina naxyal irfaniya ci geneen wàll wala suufiya mu nekkoon koo xam ni ku soobu la woon ab mutasawif la woon jaamukatu yàlla la woon ku amoon sax martabam al qutbaniyatul uzma la loolu sëñ Moustapha indi na ko ci téere bi kooku nag ak dundam ak dundi ñi sosoo ci école am ndax boo tuddee ku mel ni Cheikh euh, Mokhtar Ndoumbe Diop ak ñi mu ñu bare bari ñoo xam ni sëñ Moustapha indi na ci ab liste bu am solo ci téere bi te ñoom ñëpp ñu ngi naane ci ci ci maayinam boobu ci xam-xamam boobu euh, sos ay daara feneen daara yooyu itam yaraat ay nit ñu bare bari jàngal leen lislaam dafa mel ni ku ko tudd koon tudd nga dàttu garab bi ndax ñu bari ñëw bànqaasoo ci moom ci wàllu xam-xam kon loolu seen dund dafa mel ni lu doon ñëw ay signaux yu doon ñëw di préparer ci ni boroom jamono ñu ngi waaj a ñëw ndax kooku bu ñëwee mission dafa war a am wàll goo xam ne ab ak yeggale lay doon maanaam warul tàmbalee nit ñi ci jàngal leen alif ba ci waxin c'est-à-dire am na abajadiyaat yoo xam dafa war a fekk am ñu ko jiitu ñu ko defal ba noppi préparé ko terrain sëriñ bi bi ñëw fekk na réew mi taal jàngu yi daara yi kokk yi piir feneen ak feneen bari na ci jam àdduna bi ñi génn jàng xam-xam bari na ci réew mi ba lu baree bari daanaka nekkatul woon yitteem kon foofu la dugal moom euh, mu alif bi maamam Cheikh euh, Maxtaar Ndumbe Jóob xañ na ku koy xool nag ci xoliinu naq bi man nga ni borom téere bi de ci bi muy tàmbali moo defal boppam léppam euh, teg ci itam bi muy tudd rijaal yooyu saxsiyaat yooyu mu jiital maamam wala mu wax ci maamam waaye loolu amul solo li tax amul solo mooy li xam-xam di nangu xaj na bu ko ku sant ba jaan defoon ci waxtaan bi jóg danañ ni kon euh, nazra minal xaarij la keneen ku nekk ci beneen cadre mooy xoole nii moo waxe nii wante li ëmp solo ci xam-xam rek mooy mawdu'iyya gu mën a àndal moom muy bind moom ci boppam mawdu'iyya dafa war a ànd ak objectif objectivité ci li muy bind te boo liiree li sëñ Moustapha Diop wax ci téere bi dafay mel ni ñi daan wax ci Cheikh Mokhtar Ndombe Diop daan nañ wax lu ni mel wala ñu daan wax lu ko raw kon ëpp ëppalut xabaabalut te saxsiya bi mu indi itam ku xool makaanaam ci wàllu xam-xam ci wàllu jaamu yàlla ci wàllu tasawuf da nga xam ni indi na ki matoon ki ma ki ku mat a indi ci wàllu woowu donte nag hunaaka rijaal ñeneen a ngi fii ñeneen a ngi fi ñeneen a ngi fi ñu xam ni mën nañ leen wàcce ci wàccuwaay woowu ginnaaw bi ginnaaw ñëw dundam Cheikh Makhtar Ndoumbe dafa introduire dunduk sëriñ bi dunduk sëriñ bi la ci teg am na ci loo xam ne nag euh, dama ko ciy tooñ dama naan ko sëñ Moustapha danga nga daan bañ ku tari daf daan wax naan gars yi dañuy tari rek acam acam dañuy tari rek tari baaxul nañ fent dafay waxit naan dañoo war ni maani ñoo ni ñoom ñoo ni wax ñeneen waaye bu ñu ni ñële ñoo ni ñun ñu ni man ma daf ko taax kiis cest à kenn ku ci nekk tàmbali ci sa bopp ngay wax sa waxi bopp sof ko ci waxi kuréel bi nga bokk kuréel bi ci bokk bokk kuréel bi nga bokk itam génne seen xalaat yooyu yóbbu ko ci biti loolu Senghor daan na wax lu xaw a mel noonu enracinement ak ouverture Sëñ Moustapha moom noonu lay doxe ci wàllu xam-xam mooy toujours dafa bëgg a ibdaa day bëgg indi loo xam ne lu yees peq lay doon waaye bi muy bind ci téere bi am na ci côté yoo xam ni def ci tari tari bi nag xam-xam da koo digle ndax boo def recherche scientifique bu xam-xamee ci ab mawduu boo xam ne xaj na du yow yaa ci njëkk a bind mën naa am ku ca bind wala mu am ku bind ku lu lu dend ak moom dañoo bëgg nga def revue de la littérature li ñu bind lépp ci wàll woowu loo ca mën a liir nga liir ko soo paree nag jamono afkaar yi ci am yépp mën naa nekk afkaar ba léeg-léeg bii kii sax day bind kële ñëw ngir naqdu ko wala kële ñëw ngir contre ko waaye na indi lépp yow soo paree nag nga teg leen opposé leen kii nee na lii kii diw nee na lii bi ku li amaana almiya loolu mooy revue littéraire wala revue de la littérature soo paree ba xam ni li ñu bindoon ci wàll wi lii la nga seet saxaraat yi nag li nga xam ni kenn bindagu ci lan la yow baaxas bi wala kaatib bi loola mooy sa rôle li fekk indiwoo foofa soo fa indee lu toll ni benn birig dong baax na nag kenn waxula la nga teg fa étage soo fa indee lu toll ni benn birig dong doy na ñu ne yow lii mooy sa musaahama wala li mooy sa a ilmi loolu mooy sa contribution à la grande bibliothèque internationale parce que bu ëllëgee ku mën a def recherche ci wàll wu mën a doon dana gis ni bindkat yi bindoon nañ waaye bàyyi woon nañ nangam loo xam ne diw moo ko wax moom te kon ci mawduu boobee sa tur dana ci dugg te dootu ci parce que xam moom day éternaliser chercheur bi wala bindkat sëñ Moustapha looloo tax ci bi muy bind dellu na ci téere delluwaay yoo xam ne ci yoon wi kenn mënu ko contourner ay marajan lu mel ni Irwa um Nadim Cheikh Mouhamadul Lamine Diop ad-Darani ak euh, lu mel ni euh, Minanul Baqil Qadim bu Cheikh Mouhamadul Bachir ridwanullahi alayhim kon dellu na ci ñoom indi na seeni wax loolu laa koy tooñe léeg di ko kobos naan ko xaw ngay tari lekk léeg waaye tari mun mun munu ca ñàkk loolu lu xam-xam la door a indi nag moom ci boppam lu bees yu bees yoo xamante ni mooy li koy jëmmal ci di ko misaal dëgg mooy lu mel ni falsafatul xidma bii nga xam ni dafa jël baatub xidma ci maanaa asli wala luxawi wala istilaahi bëgg koo conceptualiser maanaam wutal ko li ñu tuddee mafhama ba pare nag taxdiid ko taarif na ko moom ci boppam sax taarif chamil boo xam ne jaamia la maanaa la waaye nag dafa li ci xaw a doy tuuti mooy taarif la falsafi la bu falsafa la boo xam ni boo ci boo ko boo ko woyee fale doo ko dégg mukk mën ngaa jàpp nag ni taarif bi dégg naa ko fekk déggu déggoo ko ndax li mu ci dugal ci ay baat yépp moom moo ko ci jublu baat bu ne daf koo tànn ba dugal ko fi mu ko war a dugal te boo ko ci génnee da nga wax leneen lu bokkul ak li mu doon wax moom loolu la taa noonu la taarifa xidma danañ ci ñëw tuuti bu ñu ko waxtu wi mayee loolu moo sax moo ëpp solo ci taqdim bi wala ard bi bi mu ñëwee ci Serigne Touba moom mi nga xam ni mooy daj dëpp gi moom la ñu baax ñépp doon préparer le terrain bi te sëñ Maxtaar bi sëñ Maxtaar Lumbe bokk ci waxuma sax ci rijaal yi sëñ bi àndaloon ay asxaab maam Cheikh Ibrahima Fall euh, sëñ Dame Abdourahmane Euh, ñeneen ak ñeneen ñooñu moom ñoo ànd ñoo sëñ bi ànd moom Thierno Birame ñeneen ak ñeneen waaye sëñ Moustapha dafa mel ni li may wax naan taqdim irfani la daf ñoo indil contexte bi ak rijaal maanaam zuruuf ya jiitu woon wala euh, waaw ak ak i rijaalam wane ni loolu moo amoon ñi ñoo préparé terrain bi ba sëñ bi door a ñëw xooloo tax bi sëñ bi ñëwee xam ngeen ni bi fi wajuuram jógee rek Mame Mor Anta Sali moom ab wooteem daa nekk prolongement nekk madat ci wooteem sëñ Mamour Anta Sali wante xam ngeen ni benn at la ci teg mille mille mil mille trois cent la mille trois cent mu wax ne yonent bi ci boppam moo wax ak moom musafahatan wax ko ni ko rabbi asxaabaka bi darsi wala tu rabbi rabbi asxaabaka bil himmati wala tu rabbihim bi darsi faqat kon soxlaatul woon jàng jàngale ndax ñi ko jiitu woon defal nañ ko ko ba noppi wala defal nañ ko ci li ci ëpp sëñ bi dafa ñëw ngir indi lu bees sëñ boobu nag Moustapha bi mu koy présenté xaj na tudd na fa mu fi mu feeñe fi leeram fe fenke wante daf ñu ci indil ay maxataat ay station ay taxawaay yoo xam ni benn bu ci nekk am na lu ci bind lu mel ni at mi mu tudd léegi 1301 hijriya muy assasin assasine xëy شافهه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة لا منام دحوة يوم الاثنين في مبكي كجو ربي ربي أصحابك بالهمة ولا تربهم تربهم بالدرس فقط بوبو موي مع المحطة الأولى تخواي بين ورا ندك تخاو ci kuy jàng ka seetal seetloo ko seetantal surtout rawatina ci falsafa tajdidiya bi sëñ bi indi foofu mooy taxawaay bu njëkk 1301 beneen bi mooy ay sachine mooy 1311 mooy marxala boo xam ne wax marxalatu tajdid al uhud wa muxawalatu altaxaruri min qawalibi tasawuf aljaamida sawba sunnati algarra cliché yi fi nekkoon bu njëkk ci wàllu tasawuf sëriñ bi moom da cee tàmbalee dañtalu commencé nag di yeesal di doxin beneen doxin bu bees mooy 1311 loolu wax ni zaliltu aabidan xadiman lirasul min aami aysachin ila aami rahil fiihi zaharat tunaa'iyatun jadida fi lfikri alxadimi ala wa huwa alxidmatu hiya alibaada aw alxidmatu alibaada loolu dinañ ci taxaw léegi incha allah ñetteelu maxata bi mooy jaysashin wa hiya marxalatu linsilaax alkulli min alqawalibi min qawalibi almuxaafada ila rixaabi tajdid maxata boo xam ne moom sëñ bi léegi cliché yi conservatisme maanaam euh, li yàq jamono jii fi ñu toll nii ci clivage yeeg yenn sëñ bi dafa dañtalu ci loolu lépp dafa nekk au-dessus même de de clivage yooyu yëpp maanaam yooyu nga xam ne mooy xàjjale nit ñi ci ay madaris fikriya ay mazahib fiqhiya ay leneen ak leneen sëñ bi daa mel ni moom ab mujaddid la dafa war a am melokaanu war a tiim yooyu yëpp daf ko war a tiim waratu la tënku ci yenn yi ba mu koy ba muy xatal aw doxalinam xam ngeen ñu bari ñu fi jaar jàmbaar lañ lool macha allah. waaye mujj nañ wird def leen a tënk am na ci sax ñoom ñoo xam ni ñenn ñoo xam ni daanañ jàmmaarloog seen mbokki jullit ni ñoom wala seen mbokki mutasawifun ni ñoom di xeex ak ñoom ndax bëgg leen a fard seen wird tijaniya wala seen wird qadiriya ku xool histoire da nga ci fekk loolu sëñ bi nag kon moom ci dawri bi mu am mission comme mu jaddit il faut mu détaché wu ci loolu lépp considération yi cliché yooyu yëpp mu sori ko clivage yooyu yëpp mu tiim ko ba man di wax ngir ñëpp nekk koo xam ni Euh, ñëpp dañuy mën a jële ci moom njariñ li mu indi loolu daal waxi waxoon naa nag ni kalaamul falasifa la stafhamu loolu laay déggee ci waxu sëñ Mustapha wa hiya beneen bi mooy jasashin wa hiya marxalatul insilaaxil kulli waaw wax naa ko léegi mu ama shahidna bi karab moo ci tegu mooy almaxata rabia baksashin wa yumathilu nihayatu almataaf wa huwa allazi talaqa fihi cheikhul wird alxaatima bi ashkaalihi thalatha raja fiqhal wérdi fi hadal kitab boo demee ci téere bi sëñ Moustapha indi na fi lu bees tàq lu mu juddlu mooy fiqhul wérdi dig diggée sax nii danañ ko móol bala moo yàgg nga xam ni boo ko xasee am da ngay peeg lépp lu aju ci ci wérdi bi beneen bi mooy ama xajjal al qalb wal qalam at mi nga xam ne sëñ bi am na te loolu ma xamal lu rëy la lu ko suñ borom defal mu boobu mu nekk al mahatta al xaamisa at mi nga xam ni ni mu bëggee woon aji makka suñu boroom may na ko nangul ko yoonu euh, xolam ak xalimaam lépp aj na ajuñ nangu 1324 almahatta sadisa mooy dem sa Chine 1343 wa hiya marxalatul jiwaar ci la amee nag mart euh, ci la amee marta ba mu dëkkaale ak boromam ba ba muy daa mel ni marxala boobu bi mu koy am moo ñëw ngir tàmbali waajal waajal ak demam wuy ji boromam jaawarani aljamilu ama jamsashin ila jinaanihi bi xayri madashi ak wax ni jazabani aljalilu ama jaysashin jaawarani aljamilu ama jamsashin shakarani mujaawiri min jamsashi jazaba kulli lahu min jaysashi kon loolu mooy marxala bi nga xam ni sëriñ bi am na ko ca kenn fekku ko ci ca mooy almaxata martaba mooy ni ñu ko sëñ Moustapha loolu am na solo jàpp naa ni ci li nga indi ci seen bi am na ci leen lu ma tuddut ngir lépp mu ne su ko indi euh, bokk na ci li sëñ Moustapha Diop al kook kii indi ci téere bi ca muy lu bees muy contribution ci wàllu xam-xam mooy lim tudde al muridiyatu wa iskaliyatul bidaya ku ne xam na ni werante am na ci boroom xam-xam yi moom nag am nañ ku ñeme la daanañ ko invité fii ci rajo yi ay émission man daanaa ko invité léeg-léeg nit woote tëkkuñu ndax li ñu wax am na courage yu wax lu kenn dul wax léeg-léeg sax da ngay tiit ci dundam ndax euh, léeg-léeg da nga naan dafa bëgg a sacrifier dundam ci ñu borom xam-xam yu bari nañ sacrifier woon seen dund xam nga ko njëkk wax ni la terre tourne dañ ko rey ñu koy rey mu naan vous me tuez et pourtant elle tourne yéen may rey ci moo ne moo ne moo ne day day tourne day mi borom naa wax li ñu ko rey nii ci tomb bii dafa ñeme critiquer critique xam-xam nag ndax critique xam-xam contribution rek lay doon du weddi ngir weddi waaye day weddi ngir contribuer wala sax du weddi waaye day dendal day ñëw teg ci wet gi beneen xalaat wala weneen gisin woo xam ni day mottali gisin wu njëkk wa rek donc duñ nekk en contradiction mais dañuy dañuy nekk euh, ci relation de complémentarité sëñ Moustapha ci euh, ci almuridiyatu wa iskaliyatul bidaaya dafa leeral ni moom ni mu doxe ci anam bi mooy doxeenu li ñu tudde ashakku nihaaj yi mooy lan taxqiq bi sëñ Oustaz du doon wax léegi ci alimaamu Ghazali dañ koy def ci li nga gëm ci pas-pas shakk bi nag suñu soi nee na moom da koy def ci li nga xam ci li nga xam ci ciy dugg chaque bi may doxee chaque nihaay ji bii mooy li ma jotoon a xam dama koy dindi teg fële du ma nangoo interroger texte yi muy mbind mi mu naan ma waaw walla déet damay liir ba pare teg fële sotti sama xel ba dara dootu ci nekk may jëfandikoo mawdon bi nag di xalaat mawdon bi muy wàll wi may waxtaanee mooy def ci sama bopp dëgg gi may seet dong mu jeex jógut ngir weddi waaye dafa jóg ngir seet kon loolu mooy li sëriñ bi indi ci tomb boobu ca muy lu bees tàq loo xam ni boroom xam-xam yi war nañ koo naq de war nañ koo critiquer dégg naa ko nag mu ni ñi koy critiquer itam moom dafa bind nañ bind ni moom ndax xam-xam man cee man cee jariñ leneen lu bees li mu indi mooy alxidmatul ibada sëriñ bi ci boppam moo bokkoon ci aadaam liñ daan tudd ay xawaalibul aada aada ci boppam ak jumtuwaayu aada yi léeg lekk am na ci yoo xam ne daaw ko sànni daf koy jël sol ca mbootum diine ak tasawuf joxaat ko nit ñi di ko jëfandikoo mu nekk diine sëriñ bi noonu la daan def ba far léppam nekk jaamu yàlla li man lahu kulliyati ibada hamdi wa man xaalafani abada la sëriñ bi wax loolu mi ngi waxee ci wakan xaqan aleyna nasrul muminin ah, sëriñ bi waxaat génne falsafa bu bees mooy alxidmatul ibada ba xidma ci boppam xidma gi mooy ibaada gi léegi jaamu yàlla gi mooy xidma bi xidma bi mooy jaamu yàlla gi ci bayit bi bu la neexoon li man lahu kulliyati ibaada nga dindi baatu ibaada teg fa baatu xidma xaj na waaruut dañ ne la ah, baat bi nii naa naa na nangam waaye ci maanaa moom surtout maanaa irfaani suufi bi ñu waxee ni li man lahu kulliyati xidma comme alxidmatu yusawi al ibaada al waxtu dafa jeex wala dama war a gaaw gaaw kon sëñ bi ñaar yooyu daf leen a daf leen a taqale muy alxidma ak al ibada foofu li ñu fi waroon a wax bari na waaye ginnaaw nee nañ niñ gaaw kon ku taarif xidma mel na ni ngay taarif ku taarif ibada itam mel na ni xidma ngay taarif loo tax sëñ Moustapha ci taarifam dafa wax ni kullu xarakatin faaida zaati qimatin maanawiya xasliyatu tabia tuadda fi lxitaabi l insani tijaha al kawni wal shukran lillah fi aryaxiyati l ubudati l xaqa lu la wax léegi nii du lépp neex a jëfandikoo du lépp loo lépp neex a dégg al aryaxiya mooy al irtiyaaxu lin nada wa nachat ila al maaruf al ubuda bii mu jëfandikoo fii mooy ad darajatu al uzma lil ibada wa li fahmi haza taarif la budda lana min fakki rumuzihi al falsafiya ndax alxaraka moo juddu sukuun wa laha maana maanan maddi wa maanawi faayila mooy xayru muftaala nekkul sutfa nekkul réaction waaye dafa jóg nekk action boo xam ni dafa jóg ngir soppi ngir tasir xaadira ala tasir misla sola waylun lil musallin allazina wa an salatihim saahu julli gi dafa ñëw ngir soppi bu dul soppi rek wala nga di ko def ni ko nit ñiy defee wala nga di ko def ngir toppandoo wala ñu forcé la ci dootul bokk ci lii ñuy wax nii kon dootul nekk xaraka faayila zaatu qimatin maanawiya la maddiya zaatu xiima dafa war a am xiima xiima nag ku ne xam na mooy ni mooy valeur valeur nag mën naa am valeur matérielle wala valeur marchande xaalis yi xob yi ñu def suñu poos amul valeur matérielle aw kay donga la wutul jëriñ dara doo ci lekk doo ci naan doo ci def dara waaye am na valeur marchande boo ko yóbbuwoon ca marché ba muy ni la njëriñ or bi nag mën naa am or bi moom am na valeur valeur matérielle am na valeur marchande valeur kon mooy loo xam ni rek mooy liñ koy natte waaye fii nag zaati xiimatin maanawiya xiima gi mën nañoo yóbbu sax ci mabaaxisul falsafa asalaas ca tuddoon ko doon na am njari waaye waxtu wi ndax sëñ Moustapha taarif na ci xidma benn bu ci nekk taxaw na ca taarif ci xidma mooy al épistémologia ak mooy mabxas bu njëkk bi beneen mabxas mooy mabxasul wujud muy al ontologia beneen mabxas mooy mabxasul xiyam ñetti mabaaxas yooyu ci xiyam yi moom mooy xiima bi jëfandikoo xiimatu shay mooy qadruhu wa hiya muraadifuhu li li sa muraadifu euh, athaman wa qiimatu shay min annaaxiya addaatiya hiya sifatu allati yajcalu dalika shay matluban aw marhuban fihi inda gayri kon mbir mu mën a doon daal ci tënk rawatina xiima bu ñu ko waxee fii ci fii sëñ Moustapha waxee dafa war a nekk loo xam ni euh, kenn du ko war a mën a wecc ko lu dul lu bokk ak moom maanaam xiima maanawiya lay doon bu ñu waxee xayr wa faalul xayra laallakum tuflixuun faalul xayr lan la ko suñ borom di faye laallakum tuflixuun al falaax est ce que mënees na koo natt kenn mënu koo mesurer kenn mënu koo natt loolu itam la falasifa yi di wax ci al xiima kon dafay nekk ci taarifam bi zaatu qiimatin ni mu ko waxee maanawiya waxaat ne qasdiyatu tabia cosaanu jëf ji dafa war a nekk ak jublu warul nekk surfa warul nekk loo xam ni dafa ñëw ci yow spontanément rek wala danga ci danga ci da nga ciy roy nit euh, waxaat ne tu adda fi lxitaab al insani tijaha al xayaat day am ci dialogue bi am ci diggante nit ki ci boppam wala nit ñi ak cosmos bi ak ak ak kawni bi ak xayaat loola ci la ñuy jëfe loo xam ni ci la ñuy xaare bu ëllëgee pay gi mu dugg ci wàllu xidma fii aryaxiyatil ubudatil xaqa boo koy def it da nga caa war a ànd ak teey bakkan bànneex xalaawu mel ni xalaawatul iman ba yonent bi doon wax nekk ci biir géeju al ubudatil xaqa muy martabatu uh, al ibada uh, uh, darajatul ibada al al ala kon sëñ bi safaa lii la tënkee ni mooy xidma maanaam daal dafa war a nekk ab xarak jëf dafa war a nekk loo xam ni itam faala lay doon loo xam ni action lay doon du nekk réaction loo xam ni lu intentionné lay doon yaa koy defal sa bopp ca it moom nga cay jublu ca it day nekk jëf joo xam ni la nga cay jublu du matériel rek wala lu ñu koy jënde loo xam ni màddiya la maanaam dama lay pentiral kër gi pour nga fay ma xaalis su ma pentiree kër gi nga fay ma xaalis loolu mënu ma ko tudde xidma su fekkee dama pentir kër gi nag cay xaar ci yow nga ñaanal ma loolee pentir bi ma ci pentir kër gi mën nañ koo tudde xidma demal sëñ bi ci ay toolam wala ma dem xel koom liggéey fa loo xam ne bu ñu ma ko doon fay par journée dinaa am nangam waaye dama ko liggéey ngir sëñ bi ñaanal ma pare ma ko taalal samay loxo defoo ko gratuitement am na looy xaar waaye la nga xaar xaj na jaza maddi la maanawi la waaye nekkul maddi kon xidma bi day dugg ci wàllu woowu ak yam ci indi yëpp nag loolu yëpp da koy def nag ak bànneex baak moo tax murid yu mel ni ñu mel xaj na sëñ Moustapha taarif na xidma ci abaad yu bari moom laa wax ne al bu'dul ontologie al bu'dul métaphysique al idéologie al xadaari ila axir ma hunalika ma hunalika min abaad kama arafa al xidmata fi suratiha al ijraiya ma nasa alayhi cheikhul xadimu alayhi akbar ridwanullahi albaqi alqadim aw tabaqahu aw rabba ala hudaahu ahlu ahla tarbiyati mooy musallas bële mu des dessiné fël loolu moom euh, sur le plan opérationnel dafa wax ni loolu mooy mooy mooy xidma mooy loo xam ni ma tabaqahu aw rabba ma ma ma ma nasa alayhi cheikhu alayhi akbar akbar ridwanullahi albaqi alqadim aw tabaqahu aw rabba alayhi ahla tarbiyati ci biir gëstoom bi itam sëñ Moustapha indi na ci loo xam ne yàgg na koo théoriser mooy li ñuy tuddee euh, ilmul ijtimaa al irfani loolu moom yàgg na ko wax yàgg na ko bind mbiram la bokk na ci yi mu juddulu mooy loo xam ni dafa def daf lay may def recherche sëñ Moustapha léeg-léeg ci recherche yi muy def da nga naan ab archéologue archéologue la daf ciy génneel génneel mbir yoo xam ni dafa mel ni bu ma dee tarxis dama naan rek sëñ dafa indi ñaari mujtama mooy mujtama Masalikul Jinaan bu sëriñ bi ak mujtama Matlabul Fawzey mujtama Masalikul Jinaan almul ijtimaa al irfaani la ko tudde mooy loo xam ne bi bi daf ci doon tashxiis daf ci doon diagnostiqué daf doon jag def diagnostiqué jamono ji mu nekkoon ba mu demee ba xam li ci nekk ci ay ay feebar ay maladie spirituelle xam nga boo defee diagnostic ba pare da bëgg xam rek mbir mi fu mu toll mooy xam yaram wi wala ki ngay faj wala yu mel noonu wala bu dee société soo paree li ñuy sàkku ci yow mooy nga def ay recommandation lii kat laa gis lii lañu war a def ngir faj lii sëñ bi recommandation yi mu def ngir ñu am madinatul insaanil kaamil wala almadinatul fadila ya falasifa yi doon wax ci li wutalee sëñ bi li mu proposé ci matlabul fawzayn muy muy muy tamaam matlabul fawzayn moo di ni dafay làmboo ñaari wàll yëpp jaanib ruuxi maddi maanaam dunya wi uxrawi la nekkul mujtama boo xam ni àdduna dong ko tax a jóg waaye day boole àdduna ak loolu mooy mujtama matlabul fawzayn kon dafay nekk naqidu mujtama masalikul jinaan nga xam ne sëñ bi daf doon def diagnostic wane ni jamono ji lii moo ci nekk ci biir recommandation yooyu nag sëñ bi def na ci ay recommandation stratégique ak recommandation opérationnelle maanaam opérationnelle ñun ñoo ko moom stratégique mooy bu sëñ bi ne euh, dafa bëgg ci dëkkam bi xam-xam wala mu ñaan boromam mu def ko dëkku xam-xam loolu dafay stratégique waaye li ci opérationnel mooy ñun nan la ñuy def kon ba xam-xam boobu am sur le plan opérationnel mooy jóg defar ay école ay lycée samp ay université tabax daara yu mel nii comme ni ko sëñ Mamour Mbacké defee ngir loole sëñ bi bëggoon mën a am loolu mooy opérationnellement recommandation yi sëñ bi defoon sur le plan stratégique ñun ñoo koy mottali loolu moo dugg ci mujtama Matlabul Fawzayni bi sëñ Moustapha Diop théorisé fii kon sëñ Maodo pare na euh, ndax tënk naa li moo doon wax waaye sëñ Moustapha indi na ci téere bi tam ak itam at tawhidul nii bi nga xam ni mu ngi ko ballaloo rek ci ci waxu sëñ bi wa baadu fa tawxidu lil qismayni munqasimun fa sara tawxidayni fa awalu takallumun wa thani taarufun la tunkiran bayaani sëñ Moustapha wax ne bu njëkk bi mooy alimul kalaam la ngeen xamoon falsafa la daanaka beneen bi ci des nag mooy mooy daanaka ak xam akuk sóobu taaruf muy euh, euh, euh, ni ma ko waxee léegi al al tawxidul irfaani tawxidul irfani nag indi la ci ab aadam bu baax bu njëkk bi mooy tawxidul uluhiya ñaareel mooy tawxidul rububiya ñetteel mooy tawxidul ubuda bi ci des mooy tawxidul ibada kon sëñ sëñ sëñ oustaz sëñ Maodo maa ngi jéglu bu baax saa su di am yu am solo yi bàyyi fii ci Rafah TV ak Rafah